kenn nuyuwul sax sa morom. <laughs> waaye raay. dafa am lu may fàttali combat bi combat bu fi yàqu woon la. <laughs> ban combat la ay dafa ngay ëmma seen moo dellu si nii. Hmm. <laughs> bu dee bëgg ngaa seetaan combat rek. Hmm. di nga di seetaan ji combat bu rëy. loolu dañu boole ñaari bëri kat. daan jël bu rëy lay daan. jël bu ñuy waxee ay semaine di ci waxtaan <laughs> tey bii jël. jël bu mag. jël bu mais mais di gërëm di gërëm 2 <laughs> parce que lii fi xew léegi plateau bi riche na. Ah, ah. non vraiment li Modou di wax mooy dëgg c'est la 2STV. non la 2STV c'est la télévision ba neexul nag bu ñu waxantee dëgg te yàlla rek tax. Ah, lamb nag moom ku ko bëgg def Sénégal mu mucc ayib. da ngay ñëw 2STV. mbokk yi c'est la télévision autrement qui vous propose la lutte autrement comme ni ñu koy defee HBK yi macha allah ñaari champion yi yegsi nañu Sidi Diop bégal nañu Eumeu Sène mi ngi toog Sa mi ngi toog Mbayang Loum ak Momo Ngom dañ ñu war a bégal léegi mais balaa mu ñu ñëw bégal il faut ñu bàyyi Eumeu Sène ak Sa Thiès HBK ñu dalal leen. ñu dalal leen ñu nuyoo ñu dalal leen ci la 2STV. HBK yow laay bàyyi nga dalal Eumeu Sène ak Sa Thiès. Eumeu Sène dalal leen dina ma dina ma neex trop. ndaxte dalal naa Eumeu Sène ak yeneen i ndaanaan. yoo xamante ne nii ci bis yu mag. waa bis yu mag yoo xamante ni Eumeu Sène bëri na kook ñoom. kon tey jii bu Sa Thiès ak moom. te fii mu toog wax naa la ko jomo ko fi indi. palmarès su papa indiwu ko ko fi. palmarèsu grand indi indiwu ko fi. palmarèsu boppam moo ko fi indi. moo ko liggéey ak mën a bëri moo ko fi liggéey. moo ko moo ko liggéey ba mu ba mën a toog fii jàkkaarloo ak Eumeu Sène. moo tax ñuy sant yàlla bu baax xanaa rakk la ñuy njëkk nuyu. rakk la ñuy njëkk a nuyu. Sa Thiès nuyu nañ la bu baax bàyyi laak nga nuyu public bi nuyu réew mi ndaxte fi ñu toll partout dans le monde ñu ngi lay seetaan te le cinq doon bis bu mag nuyu nañ la saaxu. di mos seytaane di santaat yàlla baax a baax di julli ci sant suñu ñaari waajur di jiite ci kàddu bi aussi tamit ñi génn àdduna ñëpp yàlla na yàlla yërëm xaarale àjjana. te lopitaan yàlla yëkkati leen. ñu ci ab féete ginnaaw yàlla ñu ci ab féete kanam. di nuyu ñu fi teew ñëpp sama adversaire ma seen ak sama mbokku mbër yëpp. di nuyu Baye Ndiaye Aziz ak ñu fi teewee ñëpp. waaw maa ngi sant yàlla daal. bisimilah. lan ngay wax ci bis bi le 5 nga war a jàkkaarloo ak Eumeu Sène say supporters nelawuñu une heure vingt trois jot na waaye kenn nanguwu cee gëm mu bëgg naa xam luy dalal xelam loo koy wax. waaw da ci wax nag ñu ngi liggéey ñi nga ànd ak suñu ñi ñu war a ànd ak ñëpp suñu mbokk di staff bi di encadrement beeg yëpp lépp lu ñu yaakaar yi lii bu ñu ci duggee nañ ci am ndam rek dox nañ ci di wax nag sama cadre sama côté moom da ñëpp dalal seen xel mooy si yàggul. Mm. la cinq moom dara xajutu fi. Mm-hmm. ñaan yàlla yàlla dugal ñu ci jàmm rek ñu am ci ndam ci bàq Seydina yi nga xamante ni raay moom la. Sa Thiès nuyoo ah ñu bàyyi le champion moom tamit Eumeu seet mu nuyu Sénégal ndaxte ay supporters am moom it li ma laaj Sa dinaa la ko laaj say supporters tiit nanu nee nanu xale bi moo man mag mi ginnaaw boo nuyoo waxtaan ak nit ñi lan ngay tontu ci loolu. <laughs> waaw béykat ginnaaw bu ñu sante yàlla ñu ngi jund ci yoon bi tedd bi sallallahu alayhi di gërëm suñu ñaari waajur yu mag di nuyu Sénégal gi yëpp. ak ñi toog boobu ba léegi ci télé bi di ñu seetaan ku si nekk ñu ngi lay nuyu di ñaanal senegal yàlla na fi jàmm yàgg ci koor gi ñu jigee tam li ñu war yëpp yàlla ak yàlla suñu borom nangu jégal di baalu ñëpp di baal ñëpp àq yàlla yàlla boolu jégal di nuyu waa Pikine di nuyu senegal yëpp ak diaspora bi yëpp merci. te tontu ma ci laaj bi de. waaw loolu yi ñu ne ndax xale bi mënul mag mi. mënul grand bi. <laughs> waaw parce que seen xel dalul ki muy bëreel xale la. <laughs> te xale bu am ñam la léegi nag ñu ne ëmb ci wax. ah waaw mais combat la kon yeneen combat rek la cinq yàggatul incha waaw jox naa leen rendez vous la cinq. ban seen la ñuy gis. ëmb bu ndaa allah dinañ gis beneen bu yàlla baax na la cinq soreetul. est que Sa Thiès dina nangu loolu. <laughs> ah I don't I don't <laughs> est-ce que di nga nangu loolu. Eh, ah, ah, moom laay nekk di xalaat moom laay nekk di def. le reste moom. c'est mais saa daan ëmma seen yomb na. non yombul. mais boo liggéeyee rek mën na yomb. ok. ñu ne ñu bi dafa xaw a jege sa gémmiñ trop. ok baax na voilà liggéey mooy tax moom nga daan ko. Ah. waaw gannaaw yàlla suñu borom. gars yi nee nañ daa mën a bëri. waaw mën na bëri ndax gëm kaña gu bëri pax la. waaw dañuy fàttu fépp rek. Ah, kaña gu bare pax lu koy téye. lu koy téye may fàttu fépp rek topp traitement yi rek. ah. waaw am seen a ngi. waaw man ñaari mbër yi li ma gis ci ñoom Bécaye mooy d'abord ku ci nekk da nga am sérénité. Mhm. et puis c'est normal. parce que enjeu combat bi moo toll noonu mais li ma bëggoon laaj saa rek parce que dañu gis souvent bëre kaw ngay bëre te Eumeu Sène en général bëre suuf lay bëre ma bëggoon la laaj loolu ndax yaa ngi ciy bàyyi xel en plus deuxième bi mooy ndax yaa ngi sooraale crochet gauche bu Eumeu seen parce que door na ko Balla Gaye en 2009 door na ko Lac 2 seen premier combat Demba Diop mooy bi mu kaaw dëbb mu dàq ko mu génni saaku yi door na ko Bombardier bu yàggul gis nañ barki démb aussi mu yéeg tafaatin ak crochet droit est-ce que yaa ngi sóoraale ñaari crochet long yooyu. waaw moo tax du jël poids comme ñooñu moo tax ma def sama bopp athlète. Hmm. waaw ngi koy pare ci bépp côté. ok waaw yaakaar nañu lépp lu ñu war a def pour am ci mm. ndam liggéey nañ ko ci bépp fànn nag. Raay dafa wax Raay dafa wax crochet gauche su Eumeu Sène euh, crochet gauche. mais man dama def benn analyse ci yi nga jot a perte ñi la daan ñëpp dañoo la freiné ak crochet droit. ñu dugal crochet nga taxaw ñu soog a ñëw bëre ak yow bëre bi ñu bëgg a bàyyi loolu xel wala est-ce que rectification yooyu def nga ko ci prochain combat bi ñu jëm. bu dee Malick Niang la defe naa laa dajeel. ok waaw daluma sax nu ma war a dalee. ok. bu dee boo ñaa direct lay dóor. waa waaw moom laaw lay dóor. waaw waaw waaw yooyu yëpp bi bu ci nekk bi mu ci bi mu yegsee ci yow sa combat dafa jeex est-ce que def nga ay rectification ci loolu. waaw moo waral ma nekk ci biir rek di góorgóorlu ndax nit moom boo xoolee fi ma jógee ak fi ma yegg si fii am na yu bëri yoo xamante ni bu fekkoon maa ngi ci ba léegi kon mënoon na demee neen nu gën a ñaaw. Mm-hmm. mais l'essentiel dama nekk ay kilifa. nekk ak sumay mag nekk ak ñoo xamante ni kenn xamu leen. Mm-hmm. am ñoo xamante ni maa ngi leen gëstu. Mm-hmm. di waxtaan ak ñoom. lu ci des nag liggéey la. yaakaar ci yàlla yàlla may ndam. Eumeu Sène âge békaay bëri na ak génération yi ci. Eumeu Sène boo fàttaliku diggante kombaam ak kay rek léegi mat na vingt ans. waaw moo tax ma bëgg koo laaj. carrière bu gudd boobu nga def plus de vingt ans nga nekk ci làmb ji loolu lan moo la ko may. waaw non sérieux rek kon nu may wax rek moment boobu boo xoolee suma at ñi mën a bële ñoo mag foofu. mais yoroon naa coow bu mën a bëre ñoom dama teel a ok waaye nag ba léegi maa seen doyen ci làmb du dëgg. Mhm. mais nag bokk na tamit ci hygiène de vie ak nekk professionnel xam la ngay lekk. sa mhm. temps récupération bu baax. et puis mhm. xam ni làmb itam dafa fiir loo ko boolem bàyyi la ak moom. waaw mais yaa ngi bëri xale boo xamante ne ni ase bi. buñ ko hmm. xoolee hmm. yaa ko ko ëppale xale la te xale ëpp doole e buur ñëwal fii eh, ag bégaay ag wuta eh, da nga laal ag da laal point bu garaaw c'est-à-dire da wax Eumeu Sène ko da ngay bëree xale te Eumeu bu ñu xoolee génération yi mu bëreel ci làmb bëree na ak génération yi nga xam ñëw ñoo reñee ci làmb mais bëreegul ak ñi génération bi génération ak génération bi te bu ñu xoolee aussi carrière Eumeu Sène bi muy bëree ak Modou moo ko moom moo mag Modou ci âge daanaka boobu Modou moo ñëw fekk si ko. te bi moo Modou ñëwee fekk si ko dafa am lu mu indaale am lu mu ñëw bëgg koo wane. te xale bii alir boobu la indaale. dafa ah. am lu mu indaale bëgg koo wane. am waaw maa lay dégg Modou Mbaye xam nga tul le temps dama leen dégg ngeen ne doole xale mag. doole xale mag. munoo leen ko xam. mais bu ñu géewloon rek a yéemu ci yàlla. moom mii waaw bu leen basé wu ci doole de. Hmm? la cinq yàggatul. damay dégg tout le temps ngeen koy wax. mag boobu mën nga koo daane mën nga koo daane leneen lu dul doore. Euh, non wax baaxul mais lu mu lay mënta xamal mooy. Eh, wax baax naa <laughs> li mu lay mënta xamal daal lu bëri sorewul. waaw fi